li xew lenn rek la comme ñu mission police mooy ñu assurer nit ñi ak seeni bien ci liggéey boobu daal si la nekk guddeeg bëccëg di saytu loolu si lañ nekkoon ba aj ma bi passé si guddi ñu amoon benn waay ju ñu jàppoon à yi ñax-ñaxal bu ñu doon essayer di cambrioler benn multiservice ëppoon na sax kenn mais ñaañu après dañoo dañoo dawoon léegi bi ñu jàppee kooku ñu ubbi ci enquête comme ni ko police di defee ñu ubbee enquête bi si lañu am yenn tur yi ñu def une investigation ñu amaat beneen information ci lundi bi ne am na beneen bande bu war a pour commettre cambriolage au niveau de la poste finance Nous si la ñu exploiter information bi jël au sérieux man ak samay collaborateur ñu teg suñu dispositif discret des éléments en civil si point stratégique bande la boo xam ne dañu organiser wu dëkk bu nekk buñ fa waree cambriolé am nañ fa seeni complice yu nekk ci dëkk bi fa leen dëkk xam nañ configuration dëkk bi te pour le cas de Sali bi ñu waree amee projet cambriolage bu poste finance bi kenn ci ñoom ku dëkk Sali moo ko photo filmer ko xool ñoom configuration poste finance bi kanam bi ginnaaw bi aération yi fan la ñu war a mën a jaaree ak yow léegi bi mu ko defee ba pare mu envoyé ko le cerveau de la bande ki nekk Dakar parce que kooku moom mooy spécialiste pour défoncer porte ak fenêtre aération ak fer bi nu mu mënta doon avec parce que seen outil yu outil yu am doole la pour daaj yi bu ko xoolee ba pare bu ñuy ñëw moom xam na yan outil lay war a mën a indaale pour cambrioler parce que dañoo muus mais lu ñu muus muus gënuñu ñoo muus tamit dañuy louer véhicule ay lu si ëpp nag ay Ford Escape la ñuy jël loué ko ay lu mot ay pour ñetti fan ay juróomi fan mais uniquement pour ay commettre ay cambriolage la ñuy def léegi buñ ko loué seen ñi nekk Dakar seen point de départ seen point de rencontre pour dugg biir Saly pharmacie Golf la ñuy joxee point de départ fa la ñuy déparé lu si bëri nag dañuy teel dugg si Saly ay 22 heures parce que papier yi ñuy dawale yépp ay papier en bonne et due forme lay doon parce que oto bu ñu loué la bu ñu dugg see seen point de rencontre dañuy dem ci si baal yi fa la toog waxtaan naan teg seen plan foofu noonu bu ñu defee loolu ba pare ñu génne def tour de la ville xool présence su police ci ville ñu demee ak la ak tamit lieu yi nga xam ne endroit yi nga xam ne ciblé nañ ko tamit pour cambrioler ko xool ndax foofu am na ay gardiens de nuit ou pas léegi si loolu na si lañ topp ba altine su guddi ay 23h ñooñu bi ñu dugg fekk tegoon nañ suñu dispositif ba pare ñu topp leen discrètement bi ñu leen toppee discrètement ñaar ñi bi ñu duggee ñoo seen ñi leen doon ñi seen si nekk sali ñu joxe rendez-vous benn baar bu naan baar tamit fa lañ toog waxtaan génn parce que amoon nañu tamit beneen projet de cambriolage à Touba te boobu sax la ñu programme woon njëkk koo def ba pare soog a duggaat sali def seen biir. léegi eh, nag bi ñu waxtaanee ñoom ba génn jël ñaar ñi pour génn di dem Touba croisement Sali puisque tegoon naa ko tamit dispositif secret foofu lañ leen interpellé léegi bi leen interpellé ci biir oto bi tamit biñ ko xoolee fekk nañ fa ay ngànnaay yoo xam ne ay jumtukaay yoo xam ne da leen di dimbali pour bu ñu mënee daj yi wala pour pour ubbi ay buntu daal waa ci gàttal. waaw ay ngànnaay daal yoo xam ne waa lu ne am na ci am na paaka. am na torse am na ay comme li ñuy wax pied de biche xaw ma nag pied de biche ni ñu koy waxee ci olof mais yooyu yëpp dañ koy utiliser daal waaw te tamit bu ñu amee benn magasin bu ñu dugg bu ñu ciblé ba dajji ba dugg ko li ñu ko xool dañuy xool ndax am na caméra de surveillance bu fekkee am na ko bu fekkee ñoom jot nañ ko pour enlever ko dañ koy dindi carrément bu ko defee image yi ñoom duñ leen jël bu fekkee mënuñu dindi caméra bu kawee trop parce que am nañ tamit ay yëre yu ñuy sol yëre yu ñuul yu ànd ak ay capuchon yooyu lañuy ñuy sol sol capuchon yi ak masque yi bu ko defee même bu fekkee caméra bi gis na leen yow bu fekkee xàmmee woo nit ki trop si yow kii bi nga am sa base de données des personnes à rechercher dafay xaw a difficile parfois nga jàpp leen loolu